salaamaaleykum mbokku internetu 24 actu yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ñu ñaanal Serigne Mountakha Bachir xalif général des mourides Serigne borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér ba naal bi nga xam naal na ko ngi liggéeyal ko maamam ji di Cheikhul Khadim yàlla may ko ci lu kawe njortam waaye noonu tamit dañ koy ñaanalee mboolem xalif généraux yi nga xamante ne ñi ngi ci biir réew mi waaye itam mbas mi lëmbe mim réew ko fi dàqal daal di mën a reprendre ni mu meloon waaye itam màggal li ci des daal di bëreetul ndaxte 18 la ñu wax mu di Cheikhul Khadim te ku wax 18 safar wax màggalu Touba te Cheikhul Khadim moo ne woon képp koo xamante ni mbégam sa mbég la rek na nga ko ñëw santale nga xamante ni ci la amee ndem ndam lu rëy lii ndax yaakaar naa boobu te sori loolu moo waral li nga xamante ni ñoo ko tey jàmm ji ñu am ji yàlla ak ginnaaw yàlla Cheikhul Khadim moo tax ñu am ko kon nag képp koo xamante ni nii ab julit bis bi da nga koo war di benn fan rek daa dox ci suñu digganteek bis boobu lay di 18 safar ngi fii ci Ndindy 24 euh, actu dañoo ñëw fii ci Ndindy ñëw seet si nga xamante ni moo di kër Serigne Abdoul Karim Mbacké Fallilou ndaxte buñ waxee bernde ndaxte cant dafa laaj ñett yi da ngay jàng alxuraan jàng xasaayid waaye tamit berne daf cee bokk ñu daal di ñëw nag seet si kër Baye Karim Mbacke ndaxte heure bu ñu waxee kër Baye Karim rek xel yëpp day daal dem ci li nga xamante ni moo di bernde ndax bernde dañ koo mën lool ndax boo gisee fi nga xamante ni mooy fii ñu nekk nii moo di gétt gi gis ngeen nag yi gis ngeen xar yi gis ngeen bëy yi la ko sëriñ ba waxee woon ginaar ba giléem ñoom loolu la ñu def gis ngeen jëwriñ ji waxtaan nañu ak moom xamal a baax li nga xamante ni noonu la dara gi di demee gis nañ tamit ñi nga xamante ni ñoo yore wàllum matt mi gis nañ xamante ne ni sëriñ bi di ci berne yi ñoom ñu ngi ciy am waaru day waaru mat sëkk-sëkk dañuy xaar tuuti rek ndax ki nga xamante ni moo di sëriñ Abdou Karim day daal di ñëw visiter li nga xamante ne ni moo di gétt gi ñu xaarandi tuuti rek mu daal di ñëw visiter ñu may leen image noonu en exclusivité fii ci 24 actu jërë ngeen jëf ma wax la màggal gi yàlla màggal ne ku ko màggal danañ la màggal li Bamba woote ne buñ ko wuute te digle ceeti bernde di màggal 18 safar mi ku ne ci réew mi na xam ne moom mi rekk a di magal Italie xam na France xam na Allemagne xam na li moo di magal waroon na kon tey ñuy gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaane magal murid yi jugleen waaji safar yaan ci bernde ak ñaan ñu jekku màggal murid yi jugleen waa ji safar yaan ci bernde ak ñaan ñu jekku màggal waroon na kuy ñëw Tuuba fa muy aw wu ñam wa da koy aw ci barke màggal ñu yóbbu ñam yi ci hôpital yi ak prison yi ci barke màggal sëriñ bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam bernde ci màggal képp ku màggal bis bi di màggal màggal gu dëggal dees na la màggal fonk ko moo war jàpp ko moo war ku ko deful warul ci yoote màggal bamba danoo moom am nun ku moom nañ toppi digleem te fonku màggal bamba danoo moom am nu ku moom nañ topp digleem te fonk màggal fépp fu mbooloo dajee di booloo nañ jéema booloo waxtaani màggal gat ca gënu rëy nga nekk fii xëy ba bis bi doon tey ngay gan ci màggal gat ca nga nekk fii ba bis bi doon tey ngay ci màggal loo mën a rendi rendi ko bernde màggal gi bernde mooy mbir mi berndeel bul ne jigéen la te bul ndaw la ak sant yàlla bawul ko am xel bul ne jigéen la te bul ne ak sant yàlla bawul ko am xel te sant yàlla ak jaamu yàlla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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام